Nous gisee officialisé ñu combat bi nii mënoon nañu bàyyi ba après mënoon nañu bind lettre rek dañu face à face suba nit ñi dajee Marius Ndiaye ñu ba ultérieurement ñu def mais loo rek pour plus de garantie plus de confort plus de responsabilité hein, pour valoriser aussi notre personnalité nous jaadu rafet ñu daal di ñëw fii dalal xelu régulariser combat bi sénégalais yépp xam ni officiellement date le 5. wax ñu bari baaxul ci dara jàkka ji moom jàkka ji mu nga nelee ku mën rek na jiitu waaw comme ni Souleymane Faye rek yaay jiitu maay jiitu jiitul boo ko mënee boo xamulee it nga dellu gannaaw rek ñaata journée ren ñaata journée ngeen fas yéene def ren waaw waaw suñu waxu démb de mooy suñu waxu tey bu ñu yàlla dimbalee daal dinañ am ñaar bu ñu yàlla dimbalee nag waaw nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla bu laaj beneen question nag pare naa ci man <laughs> <laughs> wàccoog siraatal mustaqim nag wax day leer man ñëwuma fii di wax ci pré trou président promoteur du dëgg bien que maay président promoteur euh charte bobu yag na fi ñun ñoo ko dul woon suivre parce que nous sommes en famille promoteur lutteur manager amateur CNG ñun ñëpp ben lañ donc ñun ñoo doon passer rek yooyu mais amul problème mais loo gis officiel daf ci baax